بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi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 alhamdulilahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa mawala mbokk yi nuy déglu wala ñu nuy seetaan ñi ngi leen di nuyu bu baax ci di leen ziyaar di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ndokkeel jullit yépp ci weeru màgg bu tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangul nu mbooleem jaamu yàlla yi te jéggal nu mbooleem rëcc rëcc yi dañ teewaat ko at yu bari ñu am mbégte bu baax teewaat ci jataay bi ni ko ñépp miine li kuréelu Al baaxoo def rekk ci weer wi jataayi xam-xam ngir dundal ko ak tasaare ko ñu ñaan yàlla mu barkeel liggéey bi noonu lañ amee mbégte tey jii dalal suñ mbokk mu baax yaakaar naa ñu bari miin nañ ko ci ay jataay yu baaxoo amal ci télé yi walla rajo yi ngir di wax ay xam-xam yoo xam ne day jariñ réew mi muy sëñ Clédor Sène moom lañ dalal fii ci jataay bi ngir seq ak moom waxtaan mu war a dikk ak ñun nag ci tomb bu am solo boo xam ne kenn ku nekk ci ñun yaakaar naa dinga ko bàyyee xel bu baax ndax li muy waxtaanee kenn ku nekk ci ñun la yitteel ndax koom-koom Sénégal wala suufu Sénégal koom-koom mi ci nekk yaakaar naa képp kuy ab sénégalais soxla nga ci ay xam-xam ak ay leeral tomb boobu nag la war a waxtaanee ñun mooy les ressources naturelles du Sénégal ak at-tabiiya mooy suufu Sénégal ndëxañteef yu am solo yi ci yàlla def ci wàllu mbell ak yu ni mel kon ñi koy ndokkeel bu baax di ko massawu ci coono yi ngir njëkkanteeg waxtu wi rekk ñu wax tuuti ci ay jaar-jaaram ak yëngutoom moom miñ ñu war a séqal jataay bi buñ ko doon xam ne dañuy wax ne Ndakaaru la fekk baax fa juddoo ci 1961 ginnaaw diir bu néew nag ngir way juróom wu góor da doon liggéey ak état ci loolu la yàlla dogale ñu affecté ko France ci Marseille ci noonu bi way juram di dem mu yóbbaale ko mook ay rakkam ak way juram bu jigéen ginnaaw diir bu néew lañ fa def ci 1966 ñu dellusiwaat ci réew mi ci Ndakaaru way juram ñu jox ko benn centre boo xam ne dañ fa doon yar ay ndaw ñu tudde ko centre ndaw yu tey tudde woon ko kaw gi mu jiite ko moom mii ci biir centre boobu fa la nekk fa la yaroo fa la doon jóge it di jàngi mu doon jàngi ci benn école ci biir dakaar ci Derkele foofu la defee primaire am ba yàlla dogal fa la amee entrant sixième moom ginnaaw loolu mu dugg lycée Blaise Diagne def fa cinquième moom ak sixième waaye it yàlla dogal mu génnaat réew mi dem réewum Togo foofu la àggale wàllu collège am ba troisième ci 1979 la dellu siwaat ci biir réew mi nekk ci benn école bu tudd cour privé i Guèye nekk ci dakaar ba tey point foofu la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee bac nag lañ ko orienté ci daara ju kawe jooju muy université Cheikh Anta ci faculté de sciences mu nekk foofu di jàng science économique foofu lañ ko orienté mu nekk fa di fa jàng ginnaaw diir bu am solo mu quitté foofu it dem ngir def benn formation informatique ci 1984 ci biir bi mu nekkee ci biir formation informatique dafa laaj nga xereñe njàngum anglais ndax programmation yi ci nekk day laaj nga xam wàllu anglais ci loolu la dem ci institut britannique ngir jàng mu continuer foofu di jàng ba am fa ay diplôme yu kawe kawe ci bi muy jàng yooyu defaale na formation comptabilité loolu sax moo ko may yàlla baaxee ko mu dugg biir Senelec liggéey ak ñoom ci ay liggéey yu am solo am ne département informatique ba moom mii mooy ki ko doon saytu ndaw ñu bari ñu fa doon liggéey ci loxoom lañ doon jaar ba tey moom mi ñu war a seqal waxtaan wi mën nañoo wax ne moom éducateur la loolu xam naa ñu bari miinuñ ko ci moom waaye ba tey moniteur de collectivité éducative la maanaam ndaw ñi nga xam ne bu vacances jotee léeg-léeg dañuy soxlawoo ñu génne leen jàngal leen defal leen ay formation ngir yee leen dugalaat leen ci société bi moom mii ku xereñe wàllu woowu la waaye yàlla dogal ci 93 wala ci 88 yàlla teg ko ay natt bam dugg ci kaso bi waaye mel na ne foofu nag ki la ko yàlla defale tawfeex xam ne mën nañoo wax ne moom gëstukat la foofu ci diir bu mu nekk foofu ci la def ay gëstu yu yaatoo yaatu nga xam ne lim jàng ci wàllu alquran ak lu mel ne xam-xamu fiq foofu la ko yàlla dogale foofu la ko jànge waaye thème bi mu war a seq ak ñun tey waxtaane ko mel na ne gëstu yu am solo yu mu ci def nga xam ne képp ku koy topp xam nga ne li muy wax lu mu xam la ci ay preuve yu leer nàññi la koy teg mel na ne foofu la ko yàlla defale tawfeex gëstu yu yaatoo yaatu mu amal ko fa ba am ci xam-xam yu wére a wér kon moom lañu war a seqal jataay bi ci thème bu am solo boobu ñuy ñaan yàlla mu defal ko tawfeex ba lépp lu mu bëgg a leeral mu leeral ko te njariñu ci njariñ lu am solo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di gërëm euh, waa alwafa yi euh, di njëkk nuyu suñu sang yu tedd yi ñu dalal euh, di am mbégte am ak yenn jotaay bi tey nga xam ni lu ama am solo ci man la parce que xalaatuma woon ni ba daaru ñu ngi ñuy bàyyi xel pour ñu waxtaanee li ñu bokk muy ressources naturelles yi loolu nag man dama ci euh, dama ko def xidma sama mission pour li ma ci jukki li ma koy li ma ciy xam ma koy partager ak askan bi man bi may ñëw sax pétrole ak gaz laa jàppoon mais gannaaw gi bi ñu ne affiche bi ma gis ni ressources naturelles yépp la euh, loolu du problème ci man moo tax Euh, partagé naa euh, ak Serigne Ndiaye je crois pour bu fekkee ni am ngeen groupe WhatsApp wala lu ngeen ko mën a wisaare benn catalogue boo xam ni jàppandi na bu direction des mines publié te nit ñi dañ dul dem ci information yi ci xibaar bi buy lister lépp li nga xam ni Sénégal am na ko ci ressource naturelle Euh, su ma ci teeloon jublu kon heure bi dina fekk mu nekk seen téléphone yéen ñëpp nga xam ni li may wax dañ koy xoolandoo tegandoo ci suñu baaraam pour compréhension bi gën a yomb euh, léegi dañuy dugg directement ci waxtaan bi euh, ressource naturelle du lu ñu daan waxtaanee Sénégal te loolu yaakaar naa ni moo yore lu bari ci koomu Sénégal ci jamonoy Senghor kenn daawul waxtaane ressource naturelle ci jamonoy Abdou Diouf daawuñu ko waxtaane ci jamonoy Ablaye Wade sax daawuñu ko waxtaane donc ci jamonoy Macky Sall euh, ci laa xëy dégg ab premier ministre Euh, maa ngi jaale euh, premier ministre Boun Abdallah Dionne mi nga xam ni sànq la ñu yëg wàññeekoom di ko ñaanal yàlla xare xare ko ak àjjana nguur gi ni woon euh, may ñu woon kenn pour mu wax ci pétrole ak ci gaas te ñu ci expert ci laa dogu nag pour génn di ci wax parce man bëgguma ku ma tënk te moo ne de kenn xalaatu woon sax ni am naa ci woon lu ma ci xam donc jamono jooju ba léegi maa ngi wax ci pétrole ak gaz mais ak ci ressources naturelles yépp yàlla nag daf ñu baaxee presque lépp li nga xam ne mooy ressources naturelles yi nekk ci àddina néew na lu ci amul Sénégal Serigne Ndiaye bu fekkee ni jot nga catalogue bi nga partage kook euh, ñi nga mën a jot ñu ubbi ko xool gis ni yàlla wàccoon na ak yàgg na parce que depuis indépendance ba léegi ñu ngi exploité fii ay ressources yoo xam ne li tax man ma ci xar sama tànk tubéy li ci sonn c'est que dafa dafa dafa jëriñul askan bi euh, dafa jëriñ nguur gi nguur yi fii nekk. ñoo koy jëriñoo ak tubaab yi ko soxla tubaab yi dañuy ñëw xaatim contrat ak nguur gi jox leen xaalis léegi jël suñu alal yóbbu seen dëkk dem defar duñ ko sax defaree fii bu ko defee ñi nekk ci nguur gi dinañu am xaalis tubaab yi dinañu am lu ñu bëgg mais askan bi du ci gis boppam. jamono ji nag dañu soppi constitution bi bind ci ni ressources naturelles askan bi moo ko moom les ressources naturelles appartiennent au peuple ki moom nag war na am sañ-sañu saytu li mu moom loolu moo waral euh, suñu jotaay bi fii léegi direction de la géologie dafa génnee benn fiche boo xam ni daf ci tënk lépp loo xam ni am na fi ci ressource naturelle day yaatu pour ñu wax lépp mais bu ñu ko doon lim da ngay gis ni da ngeen di gis ni yàlla wàccoo na ak ñun parce que ba ci matériaux de construction maanaam béton bu ñuul bi sax ak bu weex bi ressource naturelle la parce que am na ay dëkku naar yu ko amul yoo xam ne bu ñuy tabax béton bu ñuul bi jamonoy Abdou Diouf dañ ko daan jël fii port pour yóbbu ko ci pays émergents yi ñu koy tabaxee comme niñ doon jëlee gerte yi ci seko yi noonu lañ doon jëlee beton bi ci port bi pour di ko exporter parce que am na ñu amul xeer bu ñuul boobu ñuy wax basalte te moo gën a dëgër ci beton yi kon loolu ressource naturel la am nañu calcaire lu mel ni kew nga xam ni moom la ñuy defaree ciment du jeex Sénégal alum kaañ bi yëpp moom la Sénégal yëpp moom la région yëpp am nañ am nañu calcaire Sénégal kon loolu tamit ressource naturelle la parce que ciment bi ñu tabaxee Sénégal yëpp indépendance ba léegi en tout cas ba 2000 la ñu doog a am beneen cimenterie bu dul Sococim parce que Sococim mu ngi fi depuis 1948 di defar ciment ci suñu matière première boo xam ne fa mu ko doon wutee di ko fa amee ba léegi mu ngi ko fay am parce que euh, exploitation bi amul ab ci xootaay c'est exploitable indéfiniment en profondeur maanaam ci xootaay mën nga commencer waxi mais mën nga dem ba ba fu la neex kon Sococim fa mu daan amee ba léegi mu ngi fay am matière première maanaam kew gi muy wal calcaire bi pour defar ci ciment pour di ñu ko jaay ñun te tubaab ko moom état bi. di pour cent yi mu ci amoon sax jaay na ko tëngéej boo fa rombee amul benn suqaliku amul benn développement pënd bu gëri rek nga fay gis te alal ju weex tàll la parce que li ñu tabaxee Sénégal yépp fa la jóge booy jógee ndakaar ba Koulikoro foo jëm foo sànni sa bët ciment ngay gis ak beton lépp li wër doomu aadama fu mu nekk ni ay taax laa tali te loolu li koy defar day jur xaalis bari bari bari ñu sàggane ko dana ëpp sax pétrole xaalis ciment léegi yàlla baaxe nañu ñaareelu cimenterie boo xam ne ab naara ko moom bu tudd layus donte am na carte d'identité Sénégal waaye xaalisam du fi toog ñu am ñetteelu cimenterie boo xam ne tamit dàngote moo ko moom nigérian kooku tam xaalisam Nigéria lay dem waaw lan moo tax ñun mënuñu am sax cimenterie nationale te ressource bi du fi jeex parce que kuy jël autoroute à bi di jëm booru booru mbuur ak Thiès di nga gis foofu suuf si dafa sutante fu suuf sutantee rek su moo fa nekk te boo xoolee euh, weex-weex bi nekk ci ci kaw crête yi loolu mooy calcaire bi en fait ciment du Sahel ci loolu la installé moom montagne la tiim moom tolloogul sax ci niveau suuf si te Sococim depuis 48 ba léegi moom tiimul woon montagne de mais ba léegi mu ngi am. kon xoolal li fi nekk ci dayoo ci ressource waaye dañu indi quatrième cimenterie bu fi nar a ñëw ñëw na ba pare installé nañu ba pare ay marocains yu tudd simaf lañu ñoo xam ne ñoo ëpp doole Sococim ak Dangote boo leen boolee léegi ana ñun suñu secteur privé national ana suñu nguur ndax ñun dañuy continuer di joxe li ñu am ay doxandéem di ko liggéey di ñu ko jaay ñu naan ciment bi yokk nañ ko cher na wala boog dañuy sàkk yeneen yoon yoo xam ne suñu koom-koom suñu ressource naturelle danañ ñu mën a jël lii de moo tax ma xaw cee sonn parce que dafa metti ci xol nga gis ni li ñuy jëfandikoo suñu dëkk lay jóge doxandéem bi ñëw ñu jox ko ko mu am lu mu compal nguur gi ñoom ñu ci gis seen bopp askan bi ñu koy teg benn xeetu nooteel parce que ciment bu demee ba fi jege jar trois mille francs te warut a passé mille francs loolu euh, jaaduwul kon tey jii euh, yaakaar naa ni dañu war a jëm ci xalaat ci gëstu naka la ñuy jëriñoo suñu koom mais balaa ñu koy def il faut ñu xool lan la ñu am dëgg-dëgg léegi donc calcaire loolu bokk na ci liñ koy doyee mais du loolu rek léegi fi mu am dafa bëri ci Sénégal damay bañ a guddal di ko di ko lim mais bu fekkee ni yéen a ngi tiim fiche bi da ngeen di dem fiche par fiche te dana am yoo xam ni dama koy tëb parce que damay dem ci ci gën a am importance parce que am na lu ñuy wax euh, suuf dafa am benn xeetu suuf boo xam ne sable extra-siliceux lañ ko tuddee maanaam suuf soo xam ne peppam dafa set amul ay xobu garab amul ay salte amul ay neefare amul dara amul ay ay rusitu ciment comme suufu dune yi euh, loolu ñu ngi ko am diggante Malika ba ba ngay dugg ba ba ngay dugg euh, Ndar côté boobu yépp suuf la boo xam ne moom la ñu tuddee sable extra-siliceux suuf soosu solo mooy moom lañuy defaree ver ver ñu bëri xamuñu ni suuf rek la amul beneen matière buñ ci yokk amul benn combinaison chimique buñ ciy def da nga koy tàngal mille degrés mu ruy mu mu nekk liquide buy sedd nag day vitre day nekk ver nga wut sa usine di ci def ay ver creux ak ay verre plat donc depuis 2017 euh, avant même 2017 depuis 2007 amoon nañu projet implanté à Diogo benn société buy defar verre ñu tuddee ko la société africaine du verre boo xam ni 140 tonnes de verre lay produire par an verre boo ko xoolee ci construction ak ci lépp mënoo sànni sa bët foo dul gis verre moo xam vitre la moo xam pare-brise la moo xam kaas booy naanee la moo xam looy seetoo la ak lu mu mën ci nekk donc suuf soosu ñun def laalaguñ ko ba léegi mais suuf soosu dafa ànd ak aussi beneen xeetu ressource naturelle euh, damay tëb bu ñu tuddee zircon zircon nag Euh, euh, ressource naturelle la bu ama am solo boo xam ne li ñu ciy defar tamit dafa bëri te science ak technologie maanaam ñi nekk ci xarala yi dañ ko soxla lool lool lool parce que zircon ñaari xeet la boo xam ni pepp la mooy bi ñuy wax friable ak boo xam ni cristal la donj la donj buy melax bu ñu tuddee cristal bu dee donj bi nag dafa jege propriété diamant trop parce que indice de brillance am ak indice de brillance su diamant maanaam ni diamant di rey reyee ak ni zircon di rey reyee sorantewul ci nattuwaay parce que loolu am na nu ñu koy nattee indice de brillance parce que nee nañ ma naa góorgóorlu ci olof bi <laughs> alors léegi loolu dañ koy utiliser juste ci bijouterie parce que day changer couleur selon tàngaay yi muy nekk lu mu gën a tàng gën a clair lu mu gën a sedd gën a foncé mais origine bi dafay xaaw a marron comme couleuru kafe mais boo koy lakk day changer couleur dina vert dina bleu dina dem ba weex tal comme jamaa léegi jamaa te am na ñu koy jaay sax en qualité de jamaa kooku mooy premier zircon bi mais bi nga xam ni pepp bu ñuul la bu ñuul kukk boobu moo gënati am solo parce que boobu boo ko toggee ak lu mu ñuul ñuul ñuul day daldi doon wañ gu weex tàll bu ñu tuddee zirconium zircon ak zirconium benn la boo gisee ñu ni zirconium mooy li ñu ko togg moo tax parce que day oxydé wu moo tax ñu koy tuddee zirconium mais benn la léegi day doon comme wañ bu inox booy tiim mais li ko wutaleeg weñ mooy dafa ñeme tàngoor parce que wañ bu tàngee dafay tàwweeku maanaam day jilatewu mën na dem sax ba ruy ci boppam am na fu muy toll ci tàngaay wañ bi day xeli day ruy mais zirconium euh, mën nga ko tàngal ba mille neuf cent cinquante degré te du sax tàwweeku waxuma la ak ruy mu ngi ruy ci trois mille et quelques degrés te loolu pour nga am tàngoor boobu dafa metti pour ma jox leen exemple rek four yi ñuy lakkee mburu paasewul trois cent degrés te gis nga ni muy ñorale mais ba mille neuf cent cinquante degrés zircon du taweeku zirconium plutôt wañ ngi ñuy jëlee ci zircon bu ñu togg du taweeku léegi loolu nag daf koy jox benn propriété spéciale ci wàllu technique ak technologie parce que wañ gu weex la boo xam ni day intact kon partie yi nga xam ni dafay tàng jël comme réacteur u avion nga xam ni dafay génnee safar sax mënoo fa def geneen wañ bu boobu donte ab wiis kese la mënul doon beneen matière bu dul boobu kooku muy benn ci zirconium kon lu ama am solo la ci science ak technologie ba noppi conducteur la day conduire courant comme weñ yépp weñ boo ko tegee ci courant dalay maas kon conducteur la li ko boobu tam mën nañ ci rëdd ay circuit intégré maanaam gravé ci ay circuit électronique yoo xam ne lu mel ni avion wala navette spatiale wala wala wala wala satellite da ngay mën a am ay renseignement ci sa électronique de bord maanaam dalay dalay dimbali Euh, pour yokk la ay information ci li nekk sa tableau de bord kon kooku muy beneen propriété mais propriété bi ko nit ñi gën a doyee mooy ci defar courant ak ci defar arme defar courant Europe ñoom ay centrale nucléaire la ñuy defaree courant parce que mooy ëpp lu muy defar courant que courant bu jóge ci gasoil wala ci ngelaw wala ci naaj wala ci ndox léegi centrale yooyu ay ay band yu ngand ngand la yoo xam ne euh, li koy xàmb maanaam li koy li koy li koy jox tàngoor li koy xàmb uranium la tudd uranium euh, mënoo ko utiliser te dugaloo ko ci benn mbar wañ wañ gu weex googu day nekk tube boo xam ne ci ngay saañ uranium bi pour dugal ko ci xolu réacteur bi foofu mooy tàng te tàngaayam 700 degré la te nee naa leen wañ googu day supporté ba 1950 degré wañ googu rek moo mën a dem muy zirconium boobu ci këru centrale nucléaire pour ñu mën ci roof euh, ci mbar moomu euh, lu mel ni uranium bi nga xam ni 10 graamam day tolloog une tonne pétrole boo lakk kon kooku muy beneen utilisation zircon zircon buñ ci toog buñ ci toogee euh, dinañ ci yàgg lool lool lool. parce que dafa bëri yeneen yu muy defar mën nañ ci defar ba ci ay carreau ay céramique mën nañ ci defar ay bëñ mën nañ ci defar ay ay ay ay sarcophage maanaam déchets nucléaires yi nga xam ni moo jaaxal tubaab boo ko defee ci mbànd boo xam ni euh, zircon lañ ko defaree mën na rajo radioactivité bi maanaam tooke gi euh, euh, deux mille ans ñaari junni at kon loolu propriété bu spéciale la zircon dañ koy utiliser ci gànnaay lu bëri bëri bëri parce que Russie sax seen missile bu ñu mujjee génnee te mu sonal tubaab yi lool ñu ngi ko tuddee zircon missile hypersonique la boo xam ni gaawaayam dafa jéggi dayoo léegi nag zircon boobu ci boppam du doon moom rek. dafay ànd ak li ñuy wax ay mineurs associés dafay am ay àndandoo benn bi ñu ko tuddee titan euh, euh, titan tam wañ bu dëgër la beneen bi ñu ko tuddee rutile rutile dañ ciy defar ay peinture ak yooyu donc titan bi kese kese kese liñ ci mën a liggéey ci wàllu xarala dafa bëri dafa bëri lool mais balaa may àgg foofu ci zircon gis ngeen suñu écran euh, téléphone yeeg. ordinateurs yi ak télévision yi zircon la du verre bokkul ak verre bi nga xam ni moom lu suuf di togg boobu bu woddee day tas bii su woddee mën na sax bañ a toj te bu tojee sax du tas boo ci duutee sa baaraam nii mu am lu mu la jox dafa sensotronique day capter sa li ngay émettre boo ci defee bic boo xam ne maanaam loo xam ni du conducteur di nga dóor sa écran ba sonn di def dara mais booy laalee loxo bi rek mu dem donc propriété boobu la am loolu la ñuy tuddee les verres spéciaux kon dama ko naroon fàtte zircon tam dañ ciy defar li ñuy wax ay verres spéciaux parce que tey jii bu ñu nekkee ci monde tactile maanaam nga teg sa baaraam mu dem propriété verre bi nga xam ne zircon kese kese kese moo ko mën a def moo tax ordinateurs yi noonu télévision écran plat yi noonu parce que bu njëkk écran cathodique moo amoon boobu verre la boobu buy daanu di toj boo boo bësee sa loxo ba suba du def dara donc verres spéciaux yi lu ama am solo la ci technologie donc léegi zircon boobu euh, ñu ngi koy exploité fi Diogo am na Joal am na fu bëri Sénégal am na diggante Malika ba Ndar am na Casamance tamit lu bëri mais lii jàngoro Sénégal mooy suñu euh, texte yi maanaam dañu am code minier ak pétrolier bu bind ni ñun lépp lu am lu ñu am dix pour cent rek lañ ñu cay jox quatre-vingt-dix pour cent yi tubaab bee ko féetewoo Sénégal moom dix lii moo waral ñun suñu taxawaay parce que constitution bi nga xam ni moo féete kaw contrat moo féete kaw loi dafa ni ressources naturelles yi askan bee ko moom kon li askan bi moom waru cee am dix pour cent loolu wax dëgg yàlla nguur gu bees gi am nañ ci liggéey parce que kenn sañu sa dem ci naar bi fekk ko ci dëkkam ni ko sa pétrole wala sa gaz dix pour cent nga ci am li ci des dañ koy yóbbu ñoom kenn sañu leen wax loolu pourquoi ñun ñu ñuy wax loolu kon lii may lay limal ci xëwal yépp daanaka amuñ ci dara donc zircon bi kese kese kese doy na jotaay ndax importance ak solo gi mu am ci àddina parce que fi mu nekk nii ñépp a ngi téye bi verre spécial bi du bokkul ak verre bi ngay seetoo bokkuñu propriété ba noppi dafay tax ñi nga xam ne dañuy def euh, logiciel dañuy xalaat ci ay application mën cee liggéey ku mel ni Android nga xam ne day am lu mu la des ne la fii boo ci bësee yaa ngi whatsapp fii boo ci bësee yaa ngi youtube boo bës rek yaa ngi ci benn application loolu vers di kese moo ko mën vers spécial la parce que damay bañ a xóotal léegi Joal Mbuur côté yooyu ba Casamance lépp lépp lépp zircon la mais yooyu exploité wuñ ko léegi bu ñu jógee ci zircon Sénégal yàlla may nañu wañ fer fer boobu bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi mënuñu ko liggéey te pourtant boo demee Mauritanie économie Mauritanie ñaar ñoo ko ñaari kën ñoo ko téye muy pêche bi ak feeru Zouérat train bi gën a gudd ci àddina Mauritanie la nekk loolu ñu bëri xamuñu ko te train minéralier la parce que ñoom fer mooy seen ressource naturel principal te ñoom dañuy gas pour jot seen feer ñun soxlawuñu gas dañuy waxi nii rek parce que à ciel ouvert la ñuy commencer ba indéfiniment en profondeur te mosu ñoo exploiter suñu bos kon réserve yi ñu am natt yu njëkk yi ñu ngi ko xayma ci un milliard de tonnes boo xam ni kenn mosu koo laal mais géologue yi nee nañu loolu xayma la nii rek waaye ëpp na loolu fuuf fuuf fuuf waaye fer bi yàgg nañ ci lekk xaalis ci ay contrat déggoon ngeen ci fi coowu ArcelorMittal ñu waroon dàmpe Sénégal deux mille cinq cent milliards mujj gi nguur gi ñëw bees nguuru Macky Sall nangu waxaaleeg ñoom pour au lieu ñu jox ñu deux mille cinq cent milliards ñu jox ñu soixante quinze milliards mu mel ni dañoo baale deux mille quatre cent vingt cinq milliards. ci alalu Sénégal ci koo xam ne muy doog ñëw ci nguur gi donc pour wane rek ni donte waxee guñu benn tonne fer mais ñu ngi ciy signé ay contrat di ci lekk xaalis te loolu depuis Koumbari South benn société boo xam ni moom lañ njëkkoon jox permis bi euh, mu euh, sàggan ba ñu nangu ko ci moom jox ko Arcelor yooyu yëpp ay contrat yu jur xaalis la dañuy bañ a xóotal dañuy tënk pour ñu xam pour ñu mën a survoler li ñu am yëpp bu ñu gaawul bëri na bëri bu koo xam ne li Sénégal am ak njëriñam parce que mënuñu tudd dara te waxuñu lu muy jëriñ euh, parce que da ciy am solo tamit parce que suuf ñu bëri xamuñu woon ni moom la ñuy defaree verre yi ñu naanee ak yi ñuy seetoo amul leneen lu ñu ciy dolli suuf kese la amul benn produit bu ñu ciy dolli mais day doon suuf su set suuf su set nag mu ngi am ay booru géej ak dun yi bokkul ak suuf si nekk suñu koñ nga xam ne kii ba muy tabax destu ciment bi dugg na ci xob yu dee dugg nañ ci mbalit bi dem na ci yooyu day ànd ak pënd poussière ak boobu taxul ñuy wax mais su suuf bi ñuy wax pepp bu set bi ay sable de la ay ton yi tonnes yi tonnes yi tonnes moo fi am ay milliards de tonnes moo am Sénégal parce que suuf ci boppam dafa diis donc il faut ñuy laal tuuti ci ressources yi njëriñ lan lay jëriñ pour ñu xam dayoo bi mu am kon fer bi dafay ànd ak tamit fer bu we weñ bu weex bi bi ñuy wax inoxydable day ànd ak moom day ànd ak tamit aluminium léegi loolu mu ngi ni gàññ Euh, Kédougou musuñu ko exploité amoon nañu nag projet exploité ko parce que li ñu tënkoon mooy loo xam ni ñett la benn bi day am port bu nekk ñi boo xam ni fa koy yóbbu ñaareel bi day am rail à grand écartement parce que dafa am modèle rail yu bees yoo xam ni léegi au lieu mu nekk rail yu njëkk yi nga xam ni quatre-vingt-dix centimètres la yaatuwaay bi mais bii euh, un vingt mooy doon yaatuwaay bi yooyu la waroon def Kédougou parce que rail bi Tamba la ba Bargny euh, ak benn usine buy togg fer bi di ko def ay ay fer rond ay fer plat ak fer yi ñuy soxla te loolu je crois que dëkk bu mel ni Sénégal soxla na ko parce que tout le temps ñu ngi tabax tout le temps ñu ngi defar loolu dafa baax ci industrie mais war nañu sàkk pexe bu ñu jëriñoo loolu parce que dafa jot parce que monde bi dafa toll ci li ñuy wax la guerre de l'acier diggante Chine Europe ak euh, euh, nu mu tuddi États-Unis ñu ngi xëccoo lépp luy xeetu weñ ci àddina te loolu exploité wuñ ko Kédougou nag duñ fa mën a génn léegi parce que nee naa leen fu suuf sutantee rek daraa nga fa minare mu nga fa te Kédougou bu ngeen koy xool ay montagne la li gën a fës ci li fa am te ñu xam ko mooy or te bu ñu nee or sabodala rek la wax dëgg la sabodala am na or foofu la ñuy commencer exploiter or mais fépp ci Kédougou moo am or te am na sax fu ëpp or sabodala fu demee ni masawa fu demee ni Mako ak benn dëkk boo xam ne xëy na jamono yi di ngeen tudd di ngeen di ngeen dégg turam lool lool lool Euh, moo ëpp or Sabodala donc euh, bëri na sax balaa ngay àgg Kédougou ay zone yu am or donc or boobu depuis les années 74 lañ ko commencé exploiter lañ ko commencé explorer mais ñu ngi ko commencé exploiter dans les années 80 ba mu amoon fi ay coow yu bëree bëree bëree bëri bëri bëri parce que ñun ak euh, euh, Mali ak Guinée dañu toog ci benn xeetu xeer bu ñuy wax précambrien boo xam ni fu mu am or daf fay am parce que xeer yooyu moo am Ghana bu ñu tuddee ko la côte de l'or Gold Coast loolu ay genre xeetu petite montagne yu toppante la bu ñu tuddee boutonnière exactement ni mu amee Ghana noonu la amee Kédougou rawatina digganteem ak Mali ak Guinée parce que ñoo taxaloo kon Afrique yàlla wàccoon na ak ñoom foofu yëpp or la tamit mais or boobu ñun gisuñ ci suñu bopp am na plus trente cinq concessions yu ñu def maanaam permis yu ñu signé pour ñu exploité or waxuma la pour ñu sedd mais pour ñu exploiter or kon sociétés yi exploiter or fii xamuñu yëpp sax ndax bëri gi mu bëri or boobu rek fan yi newoon naa jaay nañ ci suñu 10 pour cent dugal ko Prodac mu seey loolu waxu naa ko fi exemple rek pour wane ni ñun li ñu am duñ ko sax jëriñoo soo ko sim bañ fa amoon tamit jaay nañ ko léegi zéro pour cent sax lañ fa am yooyu nag il faut mu am ku koy gëstu di ko teg ci bi ñu koy waxtaanee parce que lu ñëpp bokk la lu ñëpp moom la parce que xaalis boobu aussi foog ñu xool fu muy dugg ak lan la ñuy jëriñ ci jamono joo xam ne nit ñi fii pour machine pour chimiothérapie pour ñu am cancer sax ay benn moo fi am dafa paan fekk milliards yaa ngi ci dëkk bi ni gaañ ñu koy pasar pasare wala ñu am problème mu rein am problème mu hémodialyse nga xam ne ay kit d'hémodialyse jarul sax cinquante million nga mën ci am une centaine département bu nekk mën ci am mais xaalis bi di dem ci ay caaxaan ba suñu ay moomeel sax ñu koy jaay ba léegi suñu suuf si boppam dañ koy jaay donc euh, or bi tam mu nga foofu euh, Kédougou Kédougou boo ko waxee wax marbre marbre euh, mu ngi am dëkk bu ñuy wax Ibel yi ak euh, beneen dëkk bi fàtte naa ko Ibel ak si daal am na marbre ak néegu waaw néegu foofu ay montagne la yoo xam ne dañ ko xar nii buñ bu ku fa dem da ngay gis xar-xar bi nekk marbre pur pur pur pur pur donc xeetu marbre yépp lañu am bu verte bi ak bu rose bi ak bu noir bi ñoo ci gën cher te yooyu yépp am nañ ko am nañu bu weex beeg yeneen yi xeetu marbre yépp am na fa ba noppi am na société ñaar yu nekk di exploiter marbre bi Sénégal oriental maanaam ka euh, Tamba ak kérugu moom la ñu boole woon bu njëkk benn région mais léegi dañ ko xar xar ñaar comme ni ñu deg daggee Casamance ñetti région mais Tamba ak Kédougou ñoo bokk li ñu am comme euh, ressource naturel léegi boo fa jegee or bi am na aussi ay gisement yoo xam ni liccëm moo ca nekk liccëm dafay am yu muy àndal moom tamit ay minerais associés dafay ànd ak lu mel ni thorium ak lu mel ni nobium léegi baat yi nag dana xaaw a yéeme lool parce que muy nekk lu bees mais lithium moom la ñuy dencee courant c'est-à-dire sa téléphone batterie bi ci nekk lithium bi moo tax nga mën a root courant maanaam nga réserver courant ci sa téléphone dem ak moom 24 heures di ko jëfandikoo muy am courant batterie boobu lithium moo koy denculoo courant boo tegee sa panneau solaire guddi mënoo cee am courant lu dul danga ko danga ko ci benn batterie boo xam ni moo ko stocké bi ci gën mooy bi am lithium. am na ay gel ak yeneen bi ci am lithium moo ciy gën voiture électrique yi nga xam ni commencé na dugg Europe batterie bi lithium la ordinateur yi yëpp yëpp lithium lañuy defaree batterie yooyu loolu nag ñun xamuñu lu mu doon sax bu baax waaye fi mu nekk nii dafa ama am solo bitim réew ñu ngi koy xëccoo moom lañu ñu tuddee l'or blanc en deux mille vingt tonne lithium mu ngi doon jar six mille dollars euh, juróom benn junni dollars fi mu nekk nii romb na cent mille dollars la tonne en deux mille vingt trois la romb cent mille dollars la tonne xaw ma deux mille vingt quatre lu muy jar kon gis nga ni muy yéegee ni mu gaawee Sénégal am na ci vingt gisements yoo xam ni mu ngi ci. répertoire des ressources minières bi ma partagé ak yenn ma partagé ak sëñ Ndiaye pour mu baaxe leen ko su ngeen amee jox ngeen xool ko loolu yëpp mu ngi ci parce que mënu ma di xool di wax dafa may perturber léegi loolu benn rek lañ ci joxe en 2017 benn société chinoise bu tudd euh, New Energy Investment la ñu jox benn permis pour mu exploiter lithium léegi. dañu jëm ci jamono joo xam ni oto yiy dawee gasoil ak essance dañu nekk ci yoonu tere ko comme ni ñu teree télévision yu njëkk yi nga xam ni da doon am kii ci gannaaw mooy écran boobu di toj cathodique boobu nga xam ni amatul dañ ko tere léegi noonu la ñuy waaj a tere parce que Union européenne signé na benn loi boo xam ne à partir de deux mille cinq oto buy dawee gasoil wala essance dootul dox Europe moo tax ñu commencé di def ay voiture électrique léegi ay scooter électrique sax ngi génn léegi lépp électrique la léegi électrique boobu nag dafa gën a jox dayoo lithium boobu nga xam ni mooy stocké courant bi en fait lithium boobu euh, lu ama am solo la ci transition énergétique bi ñu jëm te yàlla baaxe nañu ci vingt gisements rien que à Kédougou mais jogo fii tamit fi ñu exploité zircon bi lithium am na fa bu bokkul ak li nekk Kédougou te benn permis lañ ci joxeegum kon loolu yaakaar naa ni war nañ ko saytu bu baax a baax a baax a baax beneen bi muy làngal ñu koy wax thorium boobu day naqaree waxtaanee parce que dafa technique trop parce que sànq maa ngi leen doon wax centrale nucléaire nga xam ni day defar courant nga xam ni ay bande yu mag la yoo xam ne ferñeentu euh, uranium ci boppam lañuy xar ci benn pexe. bu ñuy wax fission nucléaire léegi xar boobu ñu koy xar day wesaaroo ba noppi jur tàngaay bu jéggi jéggi jéggi dayoo loolu la ñuy wax réaction nucléaire léegi bu fekkee ni thorium la moo ëpp uranium doole deux cent fois te dix grammes uranium day tolloog doole une tonne pétrole dix grammes uranium waaye thorium benn gramme maanaam lu lu lu diisee ni benn cure-dent day tolloog énergie vingt tonnes pétrole boo lakk un gramme thorium boobu day lang lithium bi tamit boobu la ñuy wax le nucléaire vert maanaam uranium lu tax mu doy waar dafay dafa am tooke bu ñuy wax rajo radioactivité mais aussi dafay mën a am musiba ak ak accident parce que dafa am pression mu ngi mel ni cin buy baax ñu tëj ko ràpp ba amul fu mu fu mu génnee loolu lañuy wax pression atmosphérique pression wu uranium moo ëpp pression wu bi alom bi vingt fois moo tax bu amee insident dafay exploser parce que moo ëpp pression atmosphérique bi vingt fois mais thorium pression atmosphérique bi ak thorium ñoo tolloo kon incident mënul créer sax explosion foofu rawatina nag. tàngaayam mu ngi koy diffuser ci ndox boo xam ni dañ koo xorom ba xorom si mëntul say solution saturée de sel ci lay euh, euh, wàccee tàngaayam mu nekk combustion lente bu doon sa tàngaayu saf buy ànd ak safara léegi collool bu weex tàll boobu ngeen di gis ci kaw centrale nucléaire bi mooy vapeur bi nga xam ne ndox bi bax moo koy dégager loolu mooy tourner ay turbines yoo xam ne mooy créer courant boo xam ne moom la ñuy jëfandikoo loolu mooy euh, principe bu courant thermique buy jóge ci tàngaay donc thorium boobu non seulement amul tooke waaye moo mën uranium deux cent fois deux cent deux cent fois ci puissance ba noppi ci la ñu jëm pour remplacer énergie nucléaire kooku tamit am nañ ko kon dafa mel ni war nañu xoolaat li may wax curricula de formation bi maanaam li ñuy dëxëñ ci suñu biir njàngale li ñuy jàngale ci suñu université yi ak ci suñu école yi parce que dafa laaj ñun ñu xam li jamono soxla ak fi mu toll ñu ci former suñu ndaw yi pour ñu peg ko mën ci am ay jéego mën ci am ay compétence mën ñu ko téyeel mën ñu ci liggéeyal donc loolu euh, dem je crois que àddina seen bët ñu ngi fi léegi nag man li may jooy mooy naka la ñu amee loolu yépp ba noppi tubaab bi ni ñun 10 pour cent lañ ci am loolu def naa combat boo xam ni ku ci nekk war na ko def yëfu boppam fardu ay nii la war a doon fi mu nekk nii waratul doon loo xam ni benn clé d'or wala ñenn lanceur d'alerte ñoo koy porté mais ku ci nekk daf ko war a def mbiru boppam parce que comme je yàlla wàccoon ak ñun bu yàgg ñun ñoo xamul lu ñu defar kon Sénégal oriental ba tey gannaaw marbre bi fer bi or bi thorium bi ak ak lithium bi nga xam ne mooy nekk ci batterie bi leneen li am feneen yépp am na fa muy pétrole ak gaz bi ñuy wax am na fépp Sénégal amul fu mu amul Sénégal dafa am côté yoo xam ni rek boo ko exploité dafay jur njëriñ ak côté boo xam ni boo ko exploité yi njëriñ dafay gën a néew parce que dafa am ay zone yoo xam ne euh, pétrole beeg gaz bi dafay naju ci benn genre lu mel ni këll genre dóom nga xam ne foofu mooy ëpp pression loolu la ñuy wax bloc nga xam ne foog nga taal benn torche ci kaw benn safara ci kaw pour sax wàññi pression bi pour mën ko jëfandikoo ñun xeet boobu lañu am boo demee États-Unis ñoom amuñu bloc yooyu ñoom seen surface dafa plane bu ñu gasee teenu pétrole dañu wut benn genre pompe di ngeen gis benn weñ bu mag buy wàcc di yéeg di wàcc di yéeg nii benn déric bu mag loolu pomp la pour yokk doole euh, euh, teenu pétrole yooyu donc ñun am nañu pétrole ak gaz loolu nag fi mu nekk nii dafa nekk actualité parce que gis ngeen même ba président bu bees bi di def passation de serment président conseil constitutionnel fexe na ba tudd fa gaz ak pétrole te loolu yaakaaru mu jotee dara ak prestation de serment boo gisee mu tudd ko nag mooy solo gi mu am solo parce que lii ma leen limal nii yëpp zircon bi ciment bi fer bi marbre bi lépp lépp lépp lu ñu am at ba at la lañ ciy am danañu produire nangami tonne or par an nangami tonne phosphate par an phosphate bi maa ngi ciy ñëw nangami tonne euh, euh, gerte sax par an la mais bu dee pétrole ak gaz par jour la bés bu nekk dañuy ne nangami baril wala nangami mètre cube mooy dugg ci gafa Sénégal bés bu nekk lay doon loolu mooy particularité benn ñaareel bi euh, dañ ko soxla tamit ci ni jamono di doxee comme ni ñu soxlaa yeneen minerais yi surtout gaz bi nga xam ne euh, waa Europe ak waa Russie ñu ngi ciy jongante jongante bu metti te mu feeñ fii Sénégal ñu am ci lu bëree bari macha allah euh, ñoom ñu teg ci bët léegi ñoom balaa ñuy am li ñu bëgg ci ñun ñun war nañu am fullay am li ñu soxla ci ñoom ba pare loolu mooy partenariat gaña gaña donc ci gaz blogu Saint-Louis bi kese ñu ngi ciy séntu ci phase bu njëkk bi million millions et demi de mètres cubes par jour bés bu ne boobu dañ ko bokk ak Mauritanie mais am nañu beneen boo xam ne bokkuñu ko kenn muy blogu Kayar boo xam ni réserve yi rek mu ngi topp toll ci mille quatre cent euh, mi mi un un milliard quatre cent millions de mètres cubes réserve yi kese kese kese donc loolu bokkuñu ko kenn mu nekk loo xam ne mën na suqali Sénégal ci lu dul weesu at li may wax nag du léeboon du léppoon lu mën a am la parce que gaz dañ koy soppi directement courant directement te gaz bi ñu am Kayar ak Saint-Louis bu ñu ko soppee courant njëgu kilowatt heure bi du passé juróomi dërëm ñeenti dërëm te loolu day may ñu nekk ci dëkk yu tàng yu mel ni Touba wala Kaolack wala Fuuta ñu mën a dëkkee taal climatiseur te duñu xalaat facture ñu mën a branché appareil bu leen neex te duñu xalaat facture menuisier métallique yeeg usines yi nga xam ne courant moo leen gën a sonnal ci seen euh, euh, coût de production maanaam li ñuy dépenser pour defar dara ñooñu tamit dañuy am tawféex dañ ci dañ ci gagné lu bëri bëri bëri bëri bëri kon imaginez ku doon fay deux cent mille bu demee bay fay dix quinze mille kooku am na loo def ci gafaam donte du physiquement parce que loolu dafay wàññeeku loolu lu mën a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw la pétrole nag tamit ñun liñ ci yor taxu koo demee noonu sax gaz bi mooy suñu alal bi ëpp par rapport ak pétrole bi mais liñ ci am doy na quand pour ñu am rafinari boo xam ni mooy wuutu saa ci zone euh, Kaolack bi maanaam département Fatick Foundiougne bi nga xam ni fa la ressource bi di jóge waaye nguur gi fi ne nguur gi fi ne woon bokk ñoom dañu góolu production wu Sangomar parce que foofu dañu fa am loo xam ni pare na pour ñu exploiter ko politique moo tax ñu téye ko loolu fa nar a dañ koy indi SAR société africaine de raffinage euh, biir Dakar la nekk mbaaw day togg pétrole bi parce que pétrole brut bi dafay diis boo ko baxalee day am yu gën a oyof yi bu seddee quarante degré gaz yi dañuy génn muy buta gaz mooy gaz ñuy toggee après ñaari xeetu gaz mooy génn après éther yi ak yi après essence après gasoil bi après huile yi après graisse yi après goudron bi am na sax bitume noonu lay toftaloo loolu mooy liggéeyu saar léegi loolu raffinage la loolu saar mu ngi nekk ci diggu dakaar nga xam ne bu amee incident ñaanuma ko yàlla dafay jur loraange yu bëri léegi Sangomar ñu ngi fay séntu 5 millions de tonnes yoo xam ni par an dañ ko bëgg a dolli saar bi nga xam ni capacité am 1 million 200 la loolu muy poser problème pour waa Dakar déjà te au lieu ñu créer benn ñaareelu raffinerie fa nga xam ni fa la pétrole bi di ballee maanaam Fatick Foundiougne nga xam ni ñooñu seen économie dina ko impacter maanaam dafa indi koom ba noppi camion yu jóge Mali pour wut si essence ak gasoil au lieu ñu dugg Dakar dañuy yem foofu ñooñu suqaliku. ñu jël fa lu ñu jël dem dëkk boobu am liggéey parce que mën nañ fa am fàq ay hectares hectares yoo xam ne jegewul benn dëkkuwaay mu nekk benn hub de benn bërëbu stockage ak distribution fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy liggéeyee euh, hydrocarbure bi ci wàllu raffinage donc loolu euh, lu ñu war a xelal suñu njiiti la pour ñu dox jëm ca parce que société africaine de raffinage dafa am ñu nekk ci nguur gi jege ko lool ak ñu ko jege ñoo xam ne dañ ci am ay intérêt moo tax ñuy bëgg góolu euh, pétrole boobu di jóge Sangomar pour ñu yóbbu ko Sarr au lieu ñu defaral ñu benn seconde raffinerie te secteur privé national bi mu ngi fi te loolu day poser un problème de sécurité publique euh, biir Dakar kooku muy benn mais pétrole du rafit produit raffiné yi rek la am maanaam ay essence ak gasoil ak graisse ak huile ak yooyu mais dañ koy soppi dañ koy soppi di ci defar loo xam ni ñu bëri njortuñu ko loolu nag beneen pàcc la bu wuteeg raffinerie lu ñuy tuddee complexe pétrochimique maanaam dañ ciy liggéey benn araw bu weex tàll bu mel nii urée du xam ngeen urée yenn béykat ngeen ure araw la bu weex tàll comme noonu lay mel mais loolu polypropylène la tudd matière boobu nag ci pétrole lañ koy defaree. léegi matière boobu mën nga ci defar pratiquement lu la neex ci àddina maanaam loolu mel ni verre te du toj bakélite la tudd li ngay téye big bakélite la loolu ci euh, euh, nu mu tudd si pétrole la jóge euh, plate yi nga xam ni du toj ci pétrole la jóge geenu fil yi fil yii yëpp kontagu lamp yi tout ce qui n'est pas parce que plastique mënoo wàqi suuf ba daj plastique xam nga kooku du minerai loolu transformation la léegi polypropylène boobu araw bu weex boobu ñuy jëlee ci transformation pétrole mooy matière de base boo xam ne képp koo xam ne am nga xalaatu defar dara moo xam ay chaise plastique la moo xam ay bâche bâche yu ñu jëfandikoo yooyu yëpp dalu plastique yi caoutchouc yi euh, tissu yi nga xam ne amul wëñ comme tissu bii ma sol nii lii amul wëñ lii ci pétrole la jóge tissu yu ratax yépp ñuy defee rideau ci pétrole la jóge ak bâche yi moustiquaire yi ci pétrole la jóge donc bëri na bëri na pare-choc gu oto yi oto boo ci duggee li ci biir yépp li ci dul wañ ci pétrole la jóge éponge éponge bi ngay toog li nuroo cuir te du cuir lii yépp ci pétrole lay jóge kon lu ama am solo la pétrochimie kon loolu war nañ ci tàggat suñu ndaw yi maa ngi jëmaat ci formation pour ñu mën a intéressé wu ci physique chimie ak pétrochimie parce que ñun ñu ngi waaj a nekk pays producteur de pétrole et de gaz ma leen di informer rek ni euh, lii benn contrat pétrolier la bu ma leen indiwaaleel 2017 dem fi ñëw indi leen contrat pétrole bloc de Saint-Louis et euh, bloc de Diourbel Euh, ñu may xooli bët contrat baa ngi nii Diourbel bloc pétrolier Diourbel euh, surface contractuelle bi xam nga région du Diourbel du rectangle mais lii dafa ëpp région du Diourbel dix-sept mille deux cent soixante-cinq mille kilomètres la loo xam ni lépp pétrole la ak gaz boo xam ni dañ ko joxe woon permis benn société bu tudd AZ pétrole dinaa leen ko fi bàyyi pour wane ni Sénégal yépp yàlla am na lu mu fa dëxëñ kon lii lu ñu joxe woon la li taxoon ma indi woon fi contrat bi sëñ bi di ko baaxee di ko partager ak nit ñi en 2017 parce que ci contrat pétrole ak gaz dafa am lu ñuy wax waaye superficiel maanaam suuf si day fay maanaam deux mille dix-sept mille deux cent soixante-cinq mille kilomètres carrés yépp day fay lu ñuy wax loyer superficiel kilomètre carré bu fi bu nekk dana fay quinze dollars at bu ne te léegi yokk nañ ko def nañ ko vingt cinq dollars lii moom ma fi indi woon parce que biir région de Diourbel dafa am benn titre foncier bu tudd Touba te ci la ñuy loué di ko fayeeku la bokk te ma jàppoon ni loolu du lu jaar yoon wala lu jaar moo taxoon ma defoon ci conférence de presse parce que indemnité superficielle yi euh, laata ngay exploiter balaa ngay signer con datu contrat bi ca nga koy fay doo xaar ba at mët datu contrat bi 2013 la avril 2013 avril 2013 ngay fey bu njëkk bi un an avril 2014 nga fay avril 2015 nga fay avril 2016 nga fay noonu lay demee. donc ba 2017 la ñu nanguwaat contrat bi mais ba booba dañ doon fayeeku waaye superficiel ci bloc Diourbel bi donc pour dire que Sénégal euh, yàlla wàccoon ak moom bu yàgg yàgg yàgg ci ressource yu bëri léegi gannaaw pétrole beeg gaz bi tamit mënoon nañu yàgg ci bu nekk mais jot bee ko mayewul am nañu tamit phosphate fépp Sénégal fépp. Bambey bii xam naa ni yëg ngeen ko ñu ngi fay exploiter phosphate un million de tonnes par an benn société bu tudd Avenira wala Baobab Mining am na benn GIE bu tudd foofu gàdd bi sikk pour ñu xam Diourbel ñu xam Bambey mais ña a dëkk amuñu ci benn benn njëriñ ci phosphate bi ñuy exploiter foofu parce que demoon naa fa pour régler ay problème yu bëree bëree bëri bëri parce que ñee exploité la ñu warloo woon ak population yi defuñu ko dañu waroon defar tali bu jógee gaawaan baaba garage jëm Bambey defuñu ko latérite bu xonq boobu camion bu rombee pëndal leen moo fa am waroon nañu dimbali jigéen ñi ci ay jumtuwaayu liggéey ak ay crédit ñu de crédit loolu la ñu sàttonteeg ñoom defuñu ko ña ñu nangu seen tool pour exploité ko lañ leen waroon dàmpe dampe wuñ leen ko forage yi ñu digge woon ni lañ fay def maanaam ak ambulance yi maanaam lañ fa digge woon yëpp daal defuñu ci dara ba noppi am benn dëkk boobu foofu loolu moom a gën a metti bu tudd kër Ibra foofu la phosphate bi bëri mais dëkkuwaay la en am na ay sëg sax yoo xam ne miin da ko jëlaale parce que foofu yëpp phosphate la mais waa kër Ibra dëkk boobu ñu ngi ko tuddee prison break parce que yi ñuy wàq ci suuf si te soxlaatuñu ko gannaaw bu ñu jëlee matière bi ñu soxla day nekk ay jëli jëli jël yoo xam ne dafa wër dëkk boobu léegi am na ñaari année yoo xam ne élèves dëkk boobu demuñu jàng parce que yéeg montagne yi wàcc bi dañu lañ dul mën kon ñooñu ñu ngi leen di jéem a étouffer pour ñu demal seen bopp au lieu ñu proposer leen recasement ak dàmpaay pour jël foofu liggéey donc yooyu mooy problème yi Sénégal di jànkonteel phosphate nag fii ba Wuroso gi Dendori Matam yépp phosphate la ñu ngi koy exploité kon Sénégal am na lu bëree bëri bëri phosphate boobu nag dañ ciy taxaw tuuti parce que moom la ñuy defaree engrais léegi ñun dañuy jël phosphate bi jaay ko bitim réew bi yoon soo nga jaay ko français yi wala indien yi wala iranien yi fi mu nekk nii mu ngi ci loxo indien yi. ñoom ñu jël ko yóbbu ko bitim réew defar ko ay engrais après ñun ñu war a dem di jéggaani ay urée ñuy jëfandikoo engrais gis ngeen engrais ni mu yokkee urée dafay yokk dix dix xeetu engrais yëpp dafay yokk te loolu yëpp phosphate moo koy defar te li fi nekk ci phosphate du jeex ICS rek li fi nekk ci phosphate mën na suqali mbayu Sénégal ci wàllu engrais ak tos bu ñu mën ci soxla mais non dañ koy exporter mu jëm bitim réew. te ñun amuñu ci lu luñ ci war a am pour gaawal am nañu leneen lu ñu tuddee turb turb nag euh, nit ñi xamuñu ko lool loo xam ne la dafa mel ni jar xam nga jar jar boo ko dëbbee loo ko dëbb dëbb dëbb du mokk ru mbax dina mokk mais dina des tout le temps ay caas turb noonu la mel léegi loolu nag day tax mu mën a téye ndox day tax mu mën a téye ndox comme éponge ni muy téye ndox ba noppi tos la engrais la bu organique bu naturel boo xam ne suuf yu sonn yi nga xam ne dañ cee yàgg bay wala wala mu am xorom wala mu ñàkk engrais boo ko ci suywee da koy dekkal da koy da koy koy dundal am na ay saagu terreau yi nga xam ne ñi ñiy def pépinière dañ koy jënd ay saagu sagu plastique yoo xam ne suuf su ñuul moo ci nekk mais dafay dafay xaaw a guus loolu c'est de la tourbe dañ koy importer te mu ngi fi maanaam alumkaan bi yëpp ba Saint-Louis tourbe la Casamance li fa nekk ci tourbe du jeex léegi kooku ñetti njëriñ la am donc mën na nekk tos ci mbay mën na téye ndox boo doon arrosé euh, euh, ñetti yoon ci semaine boo arrosé benn yoon dafay doy parce que day téye ndox bi donc fii ñun dañu am problème mu ndox kooku muy benn usage mais ñaareel bi dañ ci dañ koy xàmbee dañ koy def combustible comme këriñ dañ koy dañ ciy defar këriñ këriñ yu rond yooyu euh, ñuy def cuuraay euh, wala ñi def Europe ñi def ñi def barbecue ñi lakkee yooyu ñuy jënd loolu tourbe la en fait dañ koy pressé jox ko forme bu rond wala bu carré wala bu cubique mu nekk comme këriñ loolu mën na dimbali. Euh, ménage yi maanaam kër yi pour ñu am lu ñu boyalee du fet du saxaar te tàkk-tàkk moo gën a moo gën a tàng moo gën a rafet mu ngi fii ni gaañ du jeex du xaaj mësuñu koo exploité loolu ñaareeli avantage bi mu am mooy dootul soxla ñuy gor garab gi pour defar kër yi day day aar environnement bi alom bi àll bi dootoo soxla daaneel ay garab pour defar këriñ euh, mais fii da koy jënd pour boyal ànd wala seen toxkatu chicha yooyu mooy yu bon yooyu moom la ñuy jëfandikoo wala ñuy def ay barbecue moom la ñuy jëfandikoo alors que mën na am beneen njëriñ bokk na ci njëriñam nag lépp luy génnee tàngaay ñu jàpp ni dafay defar courant tamit am na ay central à charmon yoo xam ni boo demee ICS ak euh, Dangote ñoom turbu boobu la jal di ko di ko lakk di ci defar courant pour seen usine kon ñun turb boobu mën nañ ci defar courant parce que centrale bi nekkoon baat ñi turb boobu lay defaree courant kon kooku beneen njëriñu turb la donc tookale ci suuf mën na boyal mën na defar courant mu ngi fi ni gàññ du jeex mësuñu koo exploité comme fer bi am nañu tamit ay argile benn xeetu ban boo xam ne mën nga ci defar ay karo mën nga ci defar ay céramique comme kaas yi ak yu bëree bëri yoo xam ne loolu tamit bëri na fu mu am Sénégal ci ressource naturelle kon secteur jot na te ressources yi jeexul parce que déggoon ngeen fi sax coowal jamaa parce que mënuma cee ñàkk wax waaw euh, maître Moussa Diop ne woon na fi jamaa am na Sénégal te muy dëgg bu wér parce que direction de mines mujj na reconnaître te bu ngeen xoolee ci fiche bi ma partagé ak yéen bu ngeen xoolee fiche numéro numéro 20 la def naa jamaa lañ ciy wax foofu dëkk bu ñuy wax Wasangara ci région de Kédougou am na jamaa alluvionnaire maanaam jamaa buy nekk ci ndox ci dex yi am na ko ñoom nee nañ jamaa bi nga xam ne day jóge ci xeer bi moom la ñu wax ni amagu fi te loolu wérul parce que am na ab sénégalais bu am permis or boo xam ne gis na fa xeetu xeer boobu nga xam ne dafa am jamaa boobu kon loolu yépp mu ngi fii ñuy waxtaane mais ressource naturelle ressource halieutique maanaam géej gi ak jën yi ci la bokk parce que lu naturel la géej gi ñun bi ñuy jàng école primaire dañu jàngal ni océan Atlantique mooy jën bi ëpp géej gi ëpp jën ci àddina te loolu lu wér la ndax température ndoxam moo tax xeeti jën yu bari mën faa dund loolu boo demee Mauritanie dëgg la parce que Mauritanie bëri na jën boo demee Guinée Bissau tamit dëgg la parce que Guinée Bissau bëri na jën mais diggante bi Sénégal amul jën lu nekk la ñuy daj pour am jën rawatina bu baax parce que la fa nekk ci ressource halieutique maanaam ci jën jaay nañ ko Union européenne ak chinois bi ci ay contrat yoo xam ne comme d'habitude nguur gi la ñuy yëkkati benn douze milliards jox leen ñun duñ ko gis duñu xam ci lu mu dugg ñoom ñu jël jën bi yóbbu seen dëkk ñun ñu tumuraanke muy yokk jën yu ñu daan maye léegi da koy jënd lu cher yaboy bi par exemple te yaboy bi dañ ko jox permis euh, de pêche te loolu warut parce que jënu kaw ndox yi espèce pélagique yi li li ngooñ doon ci ci su ci jéeri ji moom la doon ci géej gi parce que moom la jën yu bëri di dundee parce que dafa dafa dafa mën a jur dafa dafa bëri ci géej léegi loolu boo ci autorisé ay doxandéem ñu napp ko day dem ba jën yu mag yi dootuñu am lu ñu dundee dañuy gën a sore mool bi wut jën tamit dafay gën a sore dafay gën a sonn pour am jën donc loolu yëpp muy ay ressources yoo xam ne yu ñu war a préserver la te comme li ma wax ci gaz bi jën géej bee gën a gaaw géej bi boo ko tëjee juróom benn weer mu feesaat dell ak jën jën dootu fi dootu fi manqué comme bu njëkk loolu décision la laaj politique nga décréter repos biologique Ablaye Wade defoon na ko bi muy doog a ñëw parce que jur juru juru jën dafa gaaw nenu jën boo gis pepp bu ci nekk jën la loolu mel ni cere ci biir nen bi pepp bu ci nekk jën la kon naaxu jën boo gis benn jën a ko jur kon jën reproduction am gaaw na donc loolu dafa laaj décision politique rek nga tëj sa géej ba noppi suspendre accord accord de pêche bi Sénégal daal naataat wax naa léegi ni turb bi buñ ko soppee këriñ mën na aar àll bi mais àll bi côté Casamance Kolda Vélingara gis ngeen ni dañuy dagg bant bi di ko dugal biir Gambie di ko jaay te ay chinois ñoo koy jënd tamit loolu tamit lu ñu war a jóg la parce que ressource naturelle la ressource forestière parce que suñu àll boobu ñuy détruire pour xaalis rek te nguur gi xam ko ba am ay nit ñu yor gànnaay yu ci am ay intérêt di fa indi ay yëfu yëf yu doy waar seen diggante Gàmbi loolu aussi lu ñu war a seetaat la ci ressource naturelle yu ñu yàlla dénk la léegi nag il faut ñu wax tuuti ci ressources humaines ressources humaines mooy ñun ndaw yi ñu xam li ñu yàlla defal lan la ñu xam fi ñu jëm fan la pour tàggat ci suñu bopp waajal ci suñu bopp cest ci suñu njàngale ma baamuwaat ko encore ci suñuy njàngale war nañ cee dëxëñ euh, euh, technologie ak science maanaam xarala yu bees yi Sénégal nag état la am boo xam ne ñu ñëpp dañuy cotiser jox ko pour mu fajal ñu suñu soxla bu ngeen demee ci suñu université yi ñu fa ëpp moo ñuy jàng droit wala ñuy jàng euh, ay langue wala ñuy jàng lettre xam nga étudiant ni def naa cinq ans pour am master en anglais alors que sa doom boo ko yóbboo doom bu am neuf ans boo ko yóbboo dëkk buy làkk anglais ñetti weer mu gën a dégg anglais kooku am master jàpp ci cinq ans loolu je crois que bëriwul njëriñ pour Sénégal ay stagiaires yooyu baax na mais warul doon lu bëri réew dafa war a xool fu mu jëm ak lu mu soxla ñun ay ingénieur agronome la ñu soxla ay docteur la ñu soxla ay technicien la ñu soxla ñu mën a defar tali ñu mën a defar outil ñu mën a defar tracteur ñu mën a defar motoculteur ñu mën a defar yoo xam ne ñun dañ koy soxla pour suñu développement pour suñu mbay pour suñu càmm pour suñu lu nekk donc ci yooyu la ñu war a former ndaw yi ba nga xam ni Sénégal dina mën a suqaliku ci lu gaaw wéeru wékku ci li nga xam ni moom la ko yàlla may euh, ci euh, ci ci biir suufam ak ci biir géejam donc euh, wax bi nii laa koy tënkee parce que ci waxtu laa ko teg partagé naa ak yenn benn catalogue boo xam ne wàllu pétrole ak gaz bokku ci kooku beneen document la mais li ma lim yépp ak yi ma ci bàyyi ay actes politiques ak yeneen ba ci uranium foofu mënuma cee ñàkk ñëw uranium bi ma wax léegi euh, Sénégal am na uranium kër quand même aussi am na benn permis bu ñu joxe 2007 benn société sud-africaine bu tudd euh, Uramine Uramine la tudd gannaaw gi tubaab yi ñëw bëgg ko euh, société bu ñuy wax Areva Areva dafa obligé jënd société boobu ñu joxoon permis bi muy Uramine Areva daf ko jënd pour teg loxoom ci réserve bu uranium yi nekk Sénégal parce que booba mu ngi mu ngi jëlee uranium am fële Niger mais ñëpp xam nañu jamono ji moom dàq nañ ko Niger France. léegi foofu dafa am problème léegi bëtam dana teguwaat ci mine uranium bi mu jënd fii Kédougou te mu jënd société bi amoon permis bi te mu tudd Uramine léegi ñoom euh, dinañu teg bët fii moo tax ñun ñu war a waxtaanee vraiment li ñu am ak solo bi mu amal bitim réew bu rawatina France kon France wiiri wiiri dina ñëw fii pour uti uranium parce que tëjal nañ ko Niger te gisement bi mu am fii kenn exploité ko. Euh, Areva lañ ko jox te Areva dafa changé sax tur jamono yi donc lii mooy ci tënk te bëri na lu ñu bàyyi ci euh, ressource naturelles yoo xam ne mu ngi fi am ay njëriñ te euh, mënuñu ko xóotal lool lool lool kon ma leen di ñaan rek su ngeen amee jot ngeen xool catalogue ressources naturelles yi ma leen mu yaatu mu gën a yaatoo mu baax pour ngeen xam vraiment ni Sénégal dara dara dara manqué wu fi léegi nag li may daanale mooy problème mu ndox ndox tam ressource naturelle la ñu ngi sànni ci géej gi ci nord bi côté côté Ndar ak Fuuta fleuve senegal dex bi la cay déborder nawet ci ndox ñu ragal mu yàq dëkk dëkkaan yi day tàbbi géej dafa toll ci vingt-trois milliards de mètres ci ndox yoo xam ne dañ koy tàbbal géej tous les ans te déggoon ngeen fii projet canal du Cayor Ablaye Wade ñu woon sax ni projet kanaal du Bawol parce que ndox yooyu au ñu koy tàbbal géej war nañ ko mut mën a wutal yoon lii ñëw Bawol ñii ñëw lii ñëw Kayoor comme ni mu irrigué waalo bu Fuuta pour ñi fa miin ñi fay bay ceeb ñoom roose wuñu ndoxu dex bi moo fay ñëw dañuy tijji van tëj van kese seen tool lool ñu tëj fépp am na irrigation yoo xam ne ci dex bi la jóge kon loolu yaakaar naa ni euh, lu ñu war a dekkalaat la parce que ndox dafa am solo trop ci réew Touba rawatina problème am jàngoroom mooy ndox ñaari ndox ndox bi ñuy naan ak ndox bi leen di sonal mooy ndox bu bon bi maanaam inondation bi ñaar yooyu mooy problème mu dëkk bi te yooyu wax dëgg yàlla am na ay solution yoo xam ne dañ ci dañ ci taxawul rek euh, voilà génnee nañu ay milliards yu bari pour faj loolu te fajuwul mais munoo di génnee tout le temps ay milliards pour faj jàngoro yoo xam ne toujours day gën a day gën a tax donc loolu dafa laaj jàngat ak évaluation pour ñu fixé waat ay ay cap yu bees kon euh, ndox tamit ñu ngi ci am benn projet bu nekk ndakaar boo xam ne ndoxu géej gi la ñu bëgg a dindi xoromam pour mu nekk ndox bu lewet te loolu projet bu bon a bon la parce que usines yooyu day yokk xoromu ndoxu géej bi parce que xorom si ngay génnee ci ndox bi pour nit ñi naan ko da kay koy tàbbalaat géej léegi day yokk salinité ndox bi day yokk xorom si ndox bi ci dayoo boo xam ne euh, vingt kilomètres ak lu ko wër yépp jën du fa dund loolu aussi lu mat a bàyyi xel la ci politique yu ñuy def kon maa ngi daaneel fii waxtaan bi di joxewaat kàddu bi euh, di jéggalu ci ci ni mu demee parce que daanaka indi lu ma leen euh, document mais projet pétrole Diourbel bi fii laa leen koy bàyyi pour ngeen xam ni li am feneen am na fi phosphate bi ñuy exploité Bambey tamit am na fi Sénégal yépp daal li fi yàlla dëxëñ mu ngi ci euh, répertoire bi ma leen jox nii te di ngeen ci gis li am li am Jurbel donc pétrole li muy bindoo li muy sosoo dafay yaatu yaatu goo xam ne ëpp na Sénégal parce que li ñuy wax basin sédimentaire maanaam fi pétrole bi sosoo ay ati at ci gannaaw ba léegi mu nga commencé Guinée ba Mauritanie donc fépp Sénégal am na pétrole de day fekk fii boo fi exploité pétrole fii jurbel di nga jël ay tuyau mu dem ba port pour mën ko jaay bitim réew léegi nag boo gisee pétrole bu dem géej nga xam ni bateau yi dañ koy jël directement dem bitim réew bii da nga ciy teg loxo nii rek pour jëndanteeg jaayante mais doo ko exploité parce que day am ay surcoût loolu rek moo tax li nekk Diourbel expoité wuñ mais bu fekkoon ni fii dafa am koo xam ni daf fi bëgg a def usine gaz wala usine boo xam ni dafay def. Euh, euh, euh, pétrochimie comme maanaam soppi pétrole bi ay butéelu plastique yi ngay gis ci pétrole ci pétrole lay jóge yépp lu tuuti lay doon lu ñuy ëf donc bu fekkoon ni am na un industriel bu am xalaat boobu mën na wut permis am teenu pétrole am am complexe pétrochimique am di liggéeyloo nit ñi ci loolu mais bu dee pour jaay bitim réew moom yaakaar naa ni yi nekk biir géej ñooy ñooy gën a dox salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.

ñaanal yàlla mu yokk xam-xam bi te barkeel ko yaakaar naa thème la joxoon te mooy li yàlla dëxañ ci suufu Sénégal képp ku doon teewlu jataay bi moo xam nga nekk ci biir jataay bi wala lu ko génn xam nga bu baax ci ne yàlla dëxañ na ci suufu Sénégal yu ama am solo koy xanaa li ku nekk di laaj mooy lan moo ñu ci teew jot kon ñu sant yàlla bu baax di la gërëm ci thème bu am solo bi nga xam ne indil nga ko ak njariñ yu bari yi nga xam ne génne ko ci ngir njëkkanteeg waxtu wi daa mel ne laaj yi xaw naa bari ci turu kuréel gi noo ngi lay sant bu baax waaye noonu lañuy sante bu baax a baax waa daayira xurratul ayni waa kër Serigne Chouaïbou Mbacké ci seen teewaay ci jataay bi ci njiital sëriñ Abo Moodu Habib ak Serigne Hamsatu Jaxate ak sëriñ Abdou Samad Sylla noo ngi leen di sant bu baax di am mbégte mu yaatoo yaatu ci teew gi fekk ci jataay bi di ñaan yàlla mu fay leen te defal leen xéewal yu baree bari kon ngir njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox oustaz sëñ Mbaw mu jàllale li nga xam ne moo fi jot ci ay laaj kon bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci juróomi baat yi nu islaam boole te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëñ Kelle ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe képp ku déglu dana xam ne suuf si ndekete sunu borom dëxëñ na ci ay yàlla na euh, xam fi nuy jaar ba mën koo jariñoo waaye daal ci turu mu asasatu Wafa ñu ngi lay sant cant koo xam ni kawe na njot waxtaan wi li koy firndeel mooy dañu ni seedes mbay dàgg laaj yi firndeel na ko kii day laaj mercure lan mooy njariñam ak fan la jóge ndax ressource naturelle moom mercure salaamaaleykum wa rahmatullah mercure ñaar la ressource naturelle la euh, bu bu xaw a raar la euh, njëriñam bëri na ci euh, technologie yu xarala yi tamit bëri na ci maanaam ot technologie lañ koy gën a soxla mais nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo tamit ci ay mbirum xaalis ñu ngi koy jëfandikoo ci leneen loo xam ne scientifiquement du lu ko tax a jóg euh, fàtte naa wax ni mercure boobu tamit am na kétugu mu ngi ci euh, euh, répertoire bi ma leen partagel te kenn exploité gu ko ci lu ñu xam parce que ñoom permis yi ñuy délivré dañ ci bind or et substance maanaam or ak lu ko wër xam nga loolu leerul donc mën nga exploité sax zircon te doo am kii kon mercure te doo am permis pour exploiter mercure léegi loolu moo waral nag suñu taxi yi ñu war ko xoolaat parce que jaaduwul ñuy bind or ak li ko wër loolu dafa dafa vague trop maanaam loo fa fekk rek mën nga ko yóbbaale te or rek nga am permis loolu moo nekk ci suñu euh, euh, licence suñu suñu licence yi te loolu euh, jaaduwul kon mercure am nañ ko fi te bëri na njëriñ ci technologie yu xale yi mbokk bi nee na lay laaj pétrole bi ak gaz bi fan la war a mën a yóbbu Sénégal ci wàllu koom-koom. waaw ci wàllu koom-koom comme ni mu ko waxee li ci njëkk mooy gaz bi mën naa wàññi courant bi bu baax a baax a baax a baax parce que nee naa la ku doon fay deux cent mille buy fay dix mille loolu yëg na ko ci boppam ku daan fay cinquante mille bu fekkee ni fayoo sax cinq bu mët. loolu dafa mel ni économiser nga quarante cinq loolu comme direct la ci poche yu nit ñi ñaareel bi gis ngeen fi ni yokk nañ fi gasoil ak essence cent francs lu musul am kon pétrole bi ñuy exploité mën na tax essence beeg gasoil bi wàññeeku bu baax a baax a baax a baax a baax rawatina nag usines yi lañ ci mën a defar ci xeetu plastique ak yooyu yëpp yëpp yëpp ak li muy jur. ci liggéey yu bees yu bëri parce que dafa bëri lu mu mën a jur ci xeetu liggéey environnement pétrole dafa bëri lool lool lool njëriñ léegi nee naa leen pétrole du at ba at bés ba bés la bés bu ne day am lu muy dugal ci gafa Sénégal cent mille barils par jour boo ko multiplier par cent dollars la muy jar la ñu ciy am chaque jour la ko Sénégal di am coow li kay mooy dix-huit pour cent à près lañ ciy am. léegi loolu waaye bés bu nekk lay doon bu dee gaz bi quatorze millions et de mètres cubes rien que saint lañ cay am dana jege sept cent cinquante millions de mètres cubes bés bu ne par jour bés bu ne day dugg ci gafa Sénégal moo xam da ko jaay moo xam da nga ko jëfandikoo te loolu da nga koy jaay parce que am nga loo jëfandikoo kon loolu chaque jour dina indi devise xaalisu bitim réew ci biir Sénégal ci budget Sénégal mu des tamit nag dog bu mu njaam parce que lépp lu ñu am ci devise xaalisu bitim réew genn wàll gi France da koy téye nee na yee mooy garantie suñu franc CFA kon lu ñuy séntu ci pétrole bi bu ñu ko jaayee ci dollar genn wàll gi tam France da koy téye de loolu tamit problème bu ñu war a régler la mais bëri na njëriñ ci économie bi plus maintenant exonération maanaam tegg bi ñu leen teggil taxe yi bu ñu ko dindee maanaam ñuy fay taxe loolu tamit day yokk. ay junni junni milliards ci biir budget bi ci saa si yooyu yëpp yu mën a nekk la rawatina bu ñu xoolaatee texte yi maanaam dindi 10 pour cent bi yokk ko. jërëjëf mbokk mi dee laaj mu ni pétrole ndax bari na Sénégal. waaw pétrole bëri na Sénégal parce que nee naa am na fépp Sénégal même Kédougou bi sax am na am na am na pétrole euh, mais pétrole boobu day naqaree jot parce que Kédougou ay montagne la nee région de Diourbel am na pétrole mais pétrole bi nekk géej da koy concurrencer parce que foog nga yóbbu ko ba port pour mën ko génnee bitim réew pour jaay ko day am solo rek bu fekkee ni am na ku koy exploiter fii di ko di ko transformer fii mu jur liggéey bu boobaa dana am njëriñ loolu lu ñu mën a xalaat la donc Sénégal pétrole am bëri na mais gaz am moo ko ëpp Sénégal gaz la ko yàlla may gaz gazier la ñun suñu doole mooy gaz. te gaz moo gën a set pétrole donte pétrole moo gën a bëri njëriñ mais gaz moom lañu gën a soxla bitim réew ci jamono ji donc loolu mooy doole Sénégal maanaam gaz may fàttali rek ni may may wax rek ni lu ma fàtte wax am na benn tuyau gaz boo xam ne dañ ko bëgg a jëlee Sénégal ba Europe pour mu alimenter directement Europe en gaz loolu ñu ngi koy séntu fii ak euh, ñetti at loolu tamit lu mat bàyyi xel la mais gaz la ñuy ëppale ko pétrole. jërëjëf Clédor Sène ci waxtaanu am solo yi ñuy fàttali ñëpp ni bu subaa incha allahu Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké moom la ñu àndal ci jataay bi war koo tëj nag muy waxtaane sunu mag ñu baax ni ak fiñ jaar ba taxawal lii ñu taxawal suba ci la ñuy yëkkati jataay bi ba déwén nag jàmm ki da doon laaj nee na nee na feeraayu téléphone yi yi ñuy yi ñuy jël asalaamaaleykum wa rahmatulah أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا